محمد محمد محمد مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باق داما مد لنا الإيمان yërmande kese waaw waaw sëñ Saliou daal la man ba xale bi tuut lañ ma ko jox ba ma toll nii xanaa yërmande yàlla képp ju ma ci yoroon ci mooy sëñ Saliou waaw yërmande xajoo doomu aadama cër yi boobu la ko yàlla joxoon kenn fekk ko ma war a sum ko lii man jaar njurun jaar naa ndal jaar xel koom wàcce maa ngi wàcce sa eh, maa ngi wàcce eh, fa lañ ma wàcce njàpp njàpp na waaw nañ daan dundee mooy xéewal rek di sant baax loo xamante ne amuñu ko suñu kër amuñu ko suñu kër bàyyi ci lépp nag di ay xéewal ndax bu nee wax wax moderne daara moom moo moderne woon daara moo daara donc bu mas a bu mas a dëkkal bu ne ci ay tabax la dëkkal bu ay laal jox la ba mujj mu yéen ay mbàjj waaw toll na foo xamante ne daara ji moom moo daax kër day daax xanaa kay li yàlla indi ca kenn mënu ci dara mooy lii ba daa te daara yi kenn ku ne mën a wàcc waaye ku soñoon su doo wàcc ngir yéen maa ne joo xam dala ko war a nga ba nga xam wecce nga ko sa ndey wecce ko sa baay xanaa di xool lam gënoon a bëgg rek muy fas yéene topp ndigal bàyyi ay tere muy na sëñ Tuubaa jàngale woon ci euh, ndaw lu ne fas yéene war maa ku ko mag ku mag it fas yéene di yërëmee te ñaar yooyu rek ci la sëñ saa sëñ saa doon yar doomu aadama ba daan daan ñu boole mboolem dong moom mu yare lam naan fa fi def sa nopp mooy ñi ngeen li ngeen bokk yi boo gis bu ne moroom moom moo ko gënal kam kam moo ko gënal moom mooy li nga xam ne boo xam ne rek focc ba léegi ñëpp ñu ngi ci téere boobu di ci xanaa maa ngi dongab donga fii ci barab bi jiite wàllu xasida yi bu dee ci daayira bi nga xamante ne moom lañ jiite ci kër gi nag mooy jàmbaari xelkom bi nga xamante ne xasida yi moom mooy lépp ku ko jàpp ku jàpp xasida yi jàpp nga sëñ Tuubaa ku wàcc xasida yi wa wa romb nga sëñ Tuubaa xasida yi mooy lépp sëñ Saali moom dundam gépp ci xasida la ko def ba fi mujj gi mu fi mujj gi mu fi mujj ah, weer bi mu fi mujj ba mu dajee dongee lem ne wax mooy sëñ soo ñëwul lu dul xasida yi ba wax ba sàkkaloon nañu ni bu ko mënoon weer ñetti fan yu nekk nañ koy jàngal xasida moo war a àll ba asma jooju ñu ci barab bi di fi jàng xasida kon tey jii alxames dafa war a dëppoo bis ci la génn àdduna kaay jàng na tege bu ñu semee timis soob yàlla ñu xasida fekkee dañ leen fekkee dañ ci Eh, bu soobee yàlla sëñ Tuubaa waaw waaw yal na sëñ jàpp na mbir yëpp ba rajo bi àgg fu mas fu ab téléphone sama àgg fa ci yéen ci Pastef barke sëñ Saliou moom yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa ak jàngale ak jàng ak liggéey loolu la gënoon a bëgg li ci des dégg ngeen ko ba tàyyi nee na la ci des aw ma ci yàq aw ma ci defar loolu nag ku ne xam ne sëñ Saliou moom ak bëggam du

ba tax na moom daana ko topp tool boppam sax nag danañ def fekk ay gone yoo xam ne dañuy tëdd mu dikk wëlbati leen defar leen gone yi warante mu wëlbati leen defar leen léeg-léeg moo ko daan summi nit gone yi man mi defal na ma ko ba tàyyi ma sol yére yi xotteeku mu dem jëli ay yére simmi sim ñama simmi ko mu mu solo ma ko ci loxol boppam. Euh, du ma dund ci lu mu dul fàtte bari na bi ci njëkk euh, ci ginnaaw bi mu bëggee yàlla bëgg yonante bëgg Serigne Touba bi ñu génnee ci gaam boobu loo xamante man dund naa ko sama diggante ak loo xam ne wax dëgg yàlla dootuma ko fàtte mooy benn bis dama feebaroon feebar bi yàgg ci man lool bi ma feebaree ma jógee xel kom ñëw bima ñëwé ñëwee ko man day sama mbàkke sama yaram bi dal buma heure bi jotee damay faral di teud rek mu né ma nan la lay def ma expliquer ko ni mu démé mu réma rando sil ma rando si bima ma ñaanalee ne ma da ngay dugg ci neeg bé sangu nga nga fekkat ma fa nga fekkat ma fi ab diir yoruma mais yorna ab bu gudd bima démé dama dugg ci bir rek di banku teud sangu ñëw daal di ci mom bima ñëwé bima bur soso ba nagini ma tay ni ma lay wax ni boba la ko gëj gis ci sama yaram sonaloon na ma bi ci des euh, bi ci des daño dafa dafa am ben Serigne Saliou gis ko xam xamne manam dafa fonk doomu adam ba taxna jamono Abdou Diouf ko mo ablay wad amna na ko ko ci ne won Mbacke bu doon jamono ji ñu toll ni amna na ko ko ci ne won ne ko man de Mbacke dama la bëgg set li nga bëgg li nga gëna bëgg ma defal la mu ne ko man de sallahu li ma gën bëgg moy li ma bokk ak ñep li ma bokk ak ñep am na ñooñ bu doon tay dañ nan ko ñom seen personnel bop seen bop lañ waxal de nga bam ko waxee loolu dana ko li ma gën bëgg moy mu ne ah, mu ne ko randosil mu ñëw mu ne ko aw yoon muy ab tali moy tali bi joge xel ko mba Touba tali bobu ku ne xamne wa khayra jaaga ak peul yak ñeneen ñeneen ñeneen ñoo ci ñoko ci ëpp sax luñ ci jaar ba ca des moy forage ba ca des mooy ab courant courant bi mu ngi jëg ñii bi wàcc si bëkki barga doog a ñëw daaru xalimul xabir dem Touba Xelkom wër daara yi jënn dem xayra jaaga kon courant boobu lu mu bokk ak ñëpp la ah moo ci gën a tuutle boo dee xool yoon waat moo ci gën a tuutle ndox maat moo ci gën a tuutle mooy ay forage ñett yooyu la ko laaj waaye am na ñooñ tey bu fekkoon tey tey tey ci jamono ji tey jii la rek ñu ne mu laaj leen lu ñu gën a bëgg rek Mam boba ñom seen walu bop rek lañ koy wax daal di paré ca waaw kon sëñ bi limu yoron dako partage ko ak askan wi bëggon nak askan wi bëggon nak sénégalais yépp bëgg lepp lu yor bokk ak sénégalais yi xam ci mom lo xamanteni dara ñoru ko ludul yalla ak yonent bi ak sëriñ touba ak taalibe yi ndaw ñi nak ñi ma gis ñi xamna ñi ci ëpp ñu gis sëriñ sëriñ salu yow bu dé ben ci yeen ñi amna nu mi dem amna ñu ko ci gis xamu ñu ko sax waye mel na ne sopp ngeen ko bëgg ngeen ko ngir jëmmam ja nga xamanteni mo bëggoon askan yi bëgg ndaw ñi bëgg askanu Sénégal ba taxna tay neug ni bu fi nekkon jamono ji ñu toll ni yaakar na ne ken dootul joy dara ken dootul kii la amna bop euh, dafa ñew ci yermane dama ko fekke lolu xaban la ñu andi fa ceeb bo xamanteni ben bol bu ndaw la bol bu ndaw lu mat téméri nit nek fa bol bobu bi ko indee mom jaaxal na rek pour nim koy def bu séddale ko rek ba jox ko gone yi ñu lek wala ñeneen ñi diko gis te duñ ci man te duñ ci ñam li ma lay wax nang ko déglu bu baax dégg nga amul man du ci wax ci sall lo xamanteni lu nekkul la wala ñu may caméra rek may wax lo xamanteni xawmu xaw nga mu teg bol ci bi jaaxle na lool xamul nu mu koy séddalee ba ñenn ñi sax manam euh, duñ ci ñam ñenn ñi ñam ci daana sédd raxasal leen ma bool yi ñu raxasal bool yi heure yi la woon boobu jamono ji ñu toll nii tembe ñu raxas bool yi biñ ko raxasee ñu di ko tegal ko muy fukki bool ak ñaar daar yi boobu fukki néeg ak ñaar la woon néeg bu ne fukki nangam ci ay nit ñoo ko daan bokk léegi bi ñu ko raxasee woon moo ko tibbaateel boppam ci loxol boppam bi am nañu ñu ne defoo ko benn sax waaye man benn bala fekk bi ma fekk nag laal lay mu tibbaateel ko boppam bool bu ne benn kudd la ca def waaw genn ku goge da ko tas tasal ba mu paree daal di kenn koy fukki fukki groupe ak ñaar nañ ko ko def gaay ñu daal di geew fukki groupe ak ñaar léegi mu daal nek bol bu ci nek na kenn ñew jël tek ci digg tane bismillah bi ne bismillah man de bol ba ma sukkoon xaw ma bolé ci des man de ba ma dafa dess waw benn bol bu ndaw bo xam yow yeen ñi bu leen ko joxon bu ci paré day jeex lu mat ñetti xuma ñatt téeméeri nit bokko ko lekk ca ba suur te keneen ba ma ko laajee moom dana mën suur naa waaw kon boo ngeen xam ne kii maa ni Sëñ Saliou romb na foofu sax nag waaw daa nañ wax nag daan nañu man de bu ma xamul li ma leen fi indee ah xaw lu ma leen Sëñ Tuubaa ak yéen waaw ndaxte booba jamono jooja euh, kun dañu daan dégg naan maanaam man sëñ bi xaw ma sëñ bi xamu ma mu daal di dikk daan ne man dey tey de li ma fi indi mooy xamal ne ne maanaam li ma an li ma Sëñ boole ak yéen lima ma sëñ Tuubaa ak boole ak yéen nag bu fekkee maanaam dama leen a xamut ndax kenn ku ci nekk la nga la sa taatu gaal la ca mujj na nga ko xam ne la xam téere laa lay wax de lii ca njàpp ndal la bi mu ñu koy wax moo ay 10 heures 11 ci ñi nga la bok dégg wax wala kula waxal sëñ Saliou leer na nga dem dong ngay sëñ Saliou ca ca biir am na ñooñ danañ la ci gën a expliquer lu gën leer la expliquer te lu ma la ci expliquer dama ko feke doonul lu ma fortaatu ci mbedd waaw bari nañ nag dañu war naa Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Saliou xañ na ñooña xañ na dañu Serigne Saliou moom boo waxee ci moom comme mi mel na nga wax ci Serigne Touba rek waaye nag di ko waxal loo xamante ni lu nekk la lu am la da cay baax waaw dana am benn bis te njàpp ndal même chaque heure bii la woon ñu toog ca guy ga ca buntu njàpp ndal naan Taale Ñang ak Saliou Ndiaye bu fekkee bu nañ ma seetaan bu ma déggee dañ ko xam Talla Niang ak Saliou momo, moomu dama lay jox ay tur ñu toog ñu werante ñu ne man de Serigne Saliou xawma mu yabal kon naan Adama mu ci xam nga ndal ak Touba ñaata kilomètre mat na ay 40 wala matu ko 35 40 lay mat waaw bi ñu otobis oto jël si wul kenn kudul dul ñaar ñooñu la si ñaar ñi doon werante naan sëñ bi xam ma ñaar ñooñu la ana Talla Niang ana Saliou Ndiaye ñu ne leen maa nii mu leen kaay leen ba mu lu mu leen wax dañu jàpp ne mu ñëw da toog leen foofu ba mu toogee ba mu toogee mu ne leen ñeen ñaar ñi ay xarit ay mbokk ngeen fu ngeen jëmati bu di séddale daara yi ni ngeen ci ànd asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah sëñ Sadio wax dëgg yàlla ñun suñ ciy wax moom dafa nekk kenn luñ ci wax doyul ndax ñun xamuñu kenn ku dul sëñ Sadio biñ juddoo sëñ Sadio lañ fi fekk yaakaaroon na ne Sëñ Saaliw moom du du ko fiy jógee ba tey sax yaakaaroon na ne jógee na fi ndax dafa toll si ñun loo xam ne ñun jaral nañu lu nekk suñ dund gépp Sëñ Saaliw lañ ko jox amuñu feneen soxla lu Sëñ woote lu nekk dinañu ca dinañ ca teew ak suñ doole suñ kàttan suñ man-man lépp moo tax daal dañuy wax ne yàlla na ko yàlla yokki leer. waaw ndaw ñi xanaa ñu gën a góor góor rek te xam ne ki ñuy liggéeyal. Euh, kilifa la goo xam ne nii warut a ànd ak ay caaxaan warut a ak ay fo kuy jóg ni damaa bëgg sëñ Saliou war ngaa mel melokaan woo xam ne nii ku la gis dana xam ne ku bëgg sëriñ Saliou nga bëgg sëriñ Saliou du ay caaxaan du ay fo yoo xam ne danga ko war a booleeg lenn loo xam ne nii ku la danaan kii kat yaakaaruma ne ba mu bëggee sëriñ Saliou moom nekk te lii lay dox kon koo xam ne jóg nga rek ngir bëgg sëriñ Saliou war nga mën a rafetal sa sa jikko sensé waa say doxalin ci bu baax a baax ak fànn yëpp nag lu mën a doon ndax jamono fi ne dafa bari ay kii yoo xam ne nii daal seytaane dafa bari doole te ndaw yi dañoo jóg jëm ci sëñ Saaliw ñëpp ñu leen di wax ay saale xaat lañ diw sëriñ saali kon loolu ku ko def ku nekk war ngaa am màndargo yoo xam ne ku la gis yoo xam ne di ngay woote sa xol day feeñ ci sa jëmm. waaw sëñ Saaliw de moom li ñu mën a wax ci moom euh, bari na bariwut euh, li nu li mën a wax ci moom daal mooy kenn ku ci nekk xam na euh, melokaan bi nga xam ne nii moom la ko saa borom muy nit koo xam ne nii ku am yërmandi la waaye ku yërëm jaam ñi la waaye tamit ku dimbali jaam ñi la loolu eh, xel kom firnde la ci eh, di ñaanal bu baax xalifaam fi nekk muy Serigne Cheikh Mbacke gis nga taxawaay ba mu fa am eh, ba léegi laf fa Serigne Saliou bàyyi woon lépp dara effacé wu ci ma ngi koy doxal na mu ko war a doxale macha allah. waaw maanaam li ma leen soññu léegi mooy ñu ñu xam ne daal Serigne Saliou moom. Euh, Serigne Saliou moom day jëmm joo xam ne nii daal euh, lu ko waaye di jëfal daal moom nga jëfal ko jëmmi Serigne Touba ji benn la euh, rawatina ci daaraam yi nag nga xam ne mooy taxawaayu fondation bi ndax boo xoolee tey ji fondation Danoy Maam Fat Jaxate fi mu gën a féete Serigne Saliou mën naa ne mooy ci donga yi ak ci daara yi jàpp naa ne daal Serigne ko fu nekk baax na waaye jàpp naa tamit gën koo gën a taxaw ci daara yi daal man moom laay soññu ndaw ñëpp. di ko bàyyi loo xel tamit fondation yëpp waaw kay. tey ñëwoon rek pour euh, gën a la suñu kóolóor rek Serigne Saliou gën a gën koo jébbal suñu bopp gën koo bàyyee suñu bopp rek ginnaaw yàlla. waaw Serigne Saliou waaw bi may xale daan naa ko gis bi ma nekkee tout tànk lan laa leen mën a wax ci moom Serigne Saliou li ma leen mën a wax ci moom bari na tax naa ko bari woon yërmande la ndax maa ngi fàttaliku benn benn euh, màggal goo xam ne dama ko bëggoon a siyaare ji léegi ku ne xam ni xale day ragal pëlise léegi pëlise bi mi ngi taxaw si wetam léegi ma duggee si biir euh, kër gi lu ma yunu rek seet na ko waaye ma ngi xel yar na romb pëlise bi ak dem sama bëgg na maa dem sëñ saalewu mu daal di may muuñ bi ma muuñee ma xam ni kon suma euh, ki duma sa def dara ma daal dem sa moom loolu ma damaa taxaw rek jàkkaarloo moom mu ma daal di muuñ ni man pëlise bi laa est dem fa ak bañ dem loolu lu ma gën a marqué la si moom ndax man xam ma taw feex tax rek mu xam ko xam naa ak ay xar baaxam rek moo tax mu xam loolu ñun daal sëñ Saalum ñu ngi koy ñaanal yal na ko suñu borom fay lépp lu baax lu ma def si àdduna bi daal yal na ko suñu borom fay ndem ngi fay su si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réttiwun daal lu ñu doon xamee sëñ Saalum ak lu ñu ko doon bëgg si sant suñu ñaari waajur lu baax nag ñoom ñu ñu xeeti liggéeyal sëriñ Saalum ak xeetal si bëgg sëñ Tuubaa ñu ci sant yàlla bu baax xanaa ñu jóg rek dënbal ci eh, liggéeyu sëriñ Saliou muy si daara mi comme ni ko fondation doon soxna Faat Jaxate day defe jóg rek dëngal liggéey bi rek ne ci ndongo yi luñ bëgg rek ñu ne si ndax mbëgteem ndongo yi mooy mbëggum sëñ Saliou loolu moom lu gën a tuutur xam na ko kon ñu ñu ndaw ñu gën cee bàyyi xel bu baax gën cee fas jom gën cee gën góor góorgóorlu bu baax sa moytu famille bu baax ndax Serigne Saliou moom nee na woon àdduna bii lu di diine diine lislaam amu ci yaax amu ci defar loolu moom daan na ko digle bu baax a baax a baax ay widéoom yëpp a ngi fi lu xale bu gën a gën a judd rek gën nga ko yaaxu gën a xam mag ñi ñi ngi koy ñaan daal suñu borom fayal ñu ko macha allah li may dénk ndaw ñi nga xamante ne ñoo jamono teg Serigne Saliou euh, moo ñu gën a takkaat laxasaay gën a dëgmalaat sëriñ bi te xam ne Serigne Saliou dafa defar ñi nga xamante ne ñoom la jamonoonteel defar ñi nga xamante ne nii bés am na ñoo xam ne sëñ Saliou da leen fekk seen mbir yaa defar leen man souvent damay faral di wax naan su ma amee lu ma métti rek mooy loo xamante ne ni fekkante wu ma fi ak ba muy ba muy ba muy génn àdduna kon sëñ Saliou maanaam nataal bi mu def si ñun moo waral ñu bëgg kon li may dénk ndaw ñi képp ndaw euh, boo xamante ne teew nga fi rek nga gën a takkaat laxasaay gën a jànjeekuwaat gënal dëgg ma laal liggéeyal sëriñ te xam ne sëñ Saliou kat daana sëñ euh, sëñ Saliou wax na liggéeyal sëñ Tuubaa du ma si yaram fay ga xam koo xamante ne da nga koy lebal benn mu fay la fukk kon kooku jën naa liggéey ba dee donc maa ngi dénk ndaw yëpp ñu gën a takkaat laxasaay gën a dëgg ma sëriñ bi te xam ne loolu kesee fi nekk sëñ bi kesee fi nekk dara nekku fi lu dul dara nekku fi lu dul sëriñ bi te ñun murid dañoo am loo xamante ne ni dafa dafa dafa dafa dafa dafa doy waat gannaaw ba nga xamante ne nekk nañ ay jullit yàlla subhanahu wa taala boole lañ boole waat ñu te Seex Xadim kat daana doon wax ne ëllëg yowmal xiyam buñ demee ba ba bésub taxawaay ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jug dem si aras nuyu ji yàlla bay tunne nee na man Cheikh Amadou Khadim danaa ko dogaale fàttali ko la ma ko waxoon si maam ne ko antal karim annal Khadim doxal uddimu fi ka sanam donc kon loolu rek war naa tax ñu takkaat la xasaay gën a liggéeyaat ngir gën a ngir ngir mën a am mujj gu rafet te xam ne sëñ bi liggéeyal nañu lépp donc yéen tamit maa ngi leen di maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm macha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu